নিও আমরা Ah, oh, oh. Fit mun day mbiñ la wala nga rek ci jël Go fa yar. Ah.

Réclame la justice. Voilà.